Manuel Sen secrétaire général SYNTES section Kudu syndicat et travailleurs de l'enseignement supérieur euh, tey dañ fi daje d'abord pour euh, ñaawlu li nga xam ne moo xew ci université Cheikh Anta Diop de Dakar ñëpp gis nañ ko ci télé yi dégg ko ci rajo yi mu nekk li nga xam ne métti na taal nañu ay amphithéâtre taal ay bureau nga xam ne moom la travailleurs yi doon utiliser taal ay oto pratiquement yàq université bi yëpp ñun nag ñu ne comme ñu ñoo jiite travailleurs yi li am solo mooy e, ñu wax a opinion bi wax leen nag ci jafe-jafe yu ñu nekk mais d'abord aussi euh, di lancer appel autorité yi nga xam ne ñoom ñoo jiite université l'université Anta et le directeur du aussi que travailleurs yi am nañ ay jafe-jafe ñu bañ leen a fàtte ci lépp li nga xam ne ñoo ngi koy def am na ñi nga xam ne yàq seen oto la ñu taal te oto yooyu aussi moom lañ doon utiliser pour xëy si bus yi nga xam ne moom ma doon transporter les travailleurs fa leen ñu nekk muy kuddu parce que lu toll ni neuf bus taal nañ leen donc ñooñu ñëpp bu ñu waree xëy si fan ci lan la ñuy dugg ñu jël en contre vraiment lépp li nga xam ne yàqu-yàqu la ci université muy campus pédagogique muy campus social ba bépp dédommagement aussi bu ñuy def ñu sóoraalee travailleurs yi leneen li nga xam ne aussi war nañ ne fa ñu yëgal ko askan bi ñun amuñu difficulté pour dellu siwaat liggéey si université parce que université lañuy liggéey weer bu dee aussi fii lañ ñuy fay donc ñu buñ ñëwoon suba suba sax mun nañ ñëw liggéey si mais balaa nag aussi ñuy dellu si na nekk ci lu wóor ak ci lu leer comme que ab jafe-jafe moo ñu fi jëlee jafe-jafe boobu aussi balaa ñu fi dellu siwaat war na mun a saafarawu problème de sécurité bi nga xam ne nit ñaa ngi koy jooy waxuñ ne insécurité dafa am université aussi pour mu leer mais nañu gën a ñoŋalaat lépp luy sécurité ci université yi parce que li fi nekk foog naa ne bu ñu gënoon a renforcer davantage la sécurité amaanaa du ma du am parce que nag li fi nekkoon pratiquement mun naa ne comme guerre waxuma ne du am mais nag nañu gën a renforcer sécurité bi gën a jox jumtuwaay ñi nga xam ne ñoo fi nekk di aar di aar sécurité agent yi mais ñu gën fi mettre aussi un dispositif mun a dissuader le maximum possible ñi nga xam ne ay ñaaw ñaawteef kese moo leen yëkkati tey université Cheikh Anta ko xamee woon muy Sénégal pratiquement moo njëkk ci université yi muy Afrique de l'Ouest aussi vitrine la mais ñu nekk biti Sénégal léegi sax ay réer lañ ñu jàpp ñu ko def du ñu ay ñeneen ñu di ay doomu Sénégal la nit ñi dellu siwaat seen xel xam ne lépp lu fi nit yàq rek sa bopp nga ko donc loolu moo war ndaje tey ñu ne ñun ay travailleurs la ñu ñoo jiite travailleurs yi suñ outil de yàq nañ ko balaa ñuy def dara aussi il faut ñu addu ci wax ni ñu situation bu ñu nekk ñaawlu ko di demander aussi à ce que ñii nga xam ne ñoo def lii na yoon dal seen kaw nañ leen teg lép lu ñu mun a nekk lépp lu loi laaj seen kaw rek na leen na nañ leen ko teg loolu daal la ñuy ñaan autorités yi gis nañ seen taxawaay euh, SG Mame Samba wax na ko léegi effort yi nga xam ne docteur Cout def na ko pour université egg fu mu yegg effort yi nga xam ne recteur Ali Mbaye def na ko pour université yu ñu yegg mais ay Samba booy ñëw nañ fi yàq ko donc ñooñu nag waru ñoo mën a toog seen kër yi nekk seen jàmm au moment où travailleurs yi nekkuñ ci jàmm donc loolu aussi appel boobu moo waroon ndaje tey pour ñu yëgee ko askan bi yëgee ko aussi presse waaw loolu aussi dinaa ci dellu si mu gën a leer tey boo xoolee ñaari campus yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ngànk université muy kuddu campus social muy campus pédagogique fu ñu lié oto nga xam ay travailleur ñoo ñëwoon jënd seen oto ñu taal ko neuf minibus beneen bis nañ ko toj beneen camionnette bi nga moo doon servir transport bagage taal nañ ko taal ay bureau donc loolu kese kese waxuma la campus social kese boo ko xaymaa mun naa ne ay milliards lañ fa perte boo ñëwee campus pédagogique fac de médecine bu muy wax nii nii nii nii fi nekk oto yëpp taal nañ ko yàq bureau yi donc loolu kese boo ko xaymaa comme ni mu ko waxee rek dépassé naa ay millions parce que man nee naa ko man du ma sax ay millions faculté bu ne perte nu mu perte ay milliards la donc université yi boo lu mu lu mu lu mu perte mun naa ne ay la autorité nag ñoo ngi ay xayma yu gën a wóor xam naa ne fii ak bés euh, tey di dellu si autorité nañ ñu woote. pour def le bilan exact nga ne moo fi yàqu muy oto muy jumtuwaay muy lépp lu mu doon mais xam leen ne lu yàqu ci université du ay millions de ay milliards la ñu yàq ci université muy pour travailleurs yi muy aussi pour bien public bi okay, merci Samba Ba secrétaire général du SYNTES syndicat des travailleurs de l'enseignement supérieur au niveau de l'UCAD non oh, situation qui a prévalu au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc vous êtes sans savoir que l'université a été complètement saccagée. Et permettez-moi quand même par rapport à ces événements de présenter mes condoléances aux disparus, également souhaiter un prompt euh, rétablissement euh, aux gens qui ont été blessés durant cet événement-là. L'UCAT, dans sa globalité, c'est-à-dire le coude et l'université Anta de Dakar, ont été complètement saccagés. quand j'en parle j'ai vraiment le cœur meurtri parce que dans l'histoire de l'université Anta Diop on n'a jamais se mais il n'y jamais eu de saccages qui ont atteint ce niveau-là donc on ne saurait comprendre ce qui a motivé ce niveau d'inconscience aussi élevé aussi élevé juste pour dire aux autorités de prendre toutes leurs responsabilités par rapport à ce qui s'est passé des enquêtes ont été ouvertes nous attendons le résultat de ces enquêtes-là Et dans ces saccages-là, le personnel administratif, technique et de service que nous représentons, de même que le personnel enseignement, c'est-à-dire au-delà maintenant du parc roulant qui a été détruit, nos collègues également ont perdu des biens. Et là, je lance un appel vraiment au niveau de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que quand même cette université-là ne doit jamais rester debout, assis. Et l'université ne restera jamais les accompagner Ce qui a été détruit, nous demandons à ce que M. le Président de la République puisse maintenant nous permettre de pouvoir vraiment refaire notre parc automobile, tout en pensant aux personnels administratifs qui ont perdu vraiment des biens, c'est-à-dire leurs véhicules, que ce soit des enseignants comme des PATS, ils ont perdu leurs véhicules, qu'on pense à ces gens-là au moment de faire un dédommagement. Finir quand même par rendre un grand merci de sécurité qui ont été très parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre eux-mêmes avant de défendre autre chose. Raison pour laquelle il est demandé aux autorités que le dispositif sécuritaire qui est mis en place soit vraiment revu. Il est temps que les gens prennent vraiment toutes leurs responsabilités par rapport à la sécurité. Parce qu'on n'est plus à l'ère où on va quand même vers un pilotage en vue. Également, profiter de cette antenne pour féliciter et remercier nos directeurs, que ce soit le directeur du COUT, par a fait. a vu de manière très vraiment au niveau de l'environnement ce qu'il a fait. De même que le professeur Ali Mbaye, malgré l'investissement qui est très faible, il a réussi quand même à nous doter d'un parc automobile très fort. Maintenant, tout est détruit. Rien qu'ici, au niveau de la faculté de médecine, pour vous dire à titre vraiment exemplaire, on a dénombré plus de millions de perdus, rien qu'à la faculté de médecine. Étendre ça à l'image de l'université, c'est que nous avons perdu des milliards. Des milliards. Donc, il va la raison. les gens reviennent à la raison. un leg qu'on nous a donné et cette leg-là doit perpétuer. Et pour finir, on nous a demandé de reprendre au niveau de l'UCAT, ce qui n'est pas encore le cas au niveau du campus euh, social, si je ne m'abuse. Et il faudrait que les conditions de reprise également répondent à des normes. Parce que nos collègues qui sont là, si je prends bien que l'exemple de la, de la faculté des lettres, nos collègues sont de véritables patriotes. Quand on leur a demandé de, Et pourtant, ils sont dans des conditions très difficiles avec leurs bureaux qui ont été saccagés. Et il y en a d'autres même qui n'ont pas de bureau et qui errent. Donc, il est temps quand même que le gouvernement, à travers le ministère, prenne ses responsabilités pour qu'on puisse reprendre dans les meilleures conditions. Et nous sommes prêts à reprendre.